ko defee damay tënk rek ndax sama xol dafa fees te ci barab laa nekk dama ami gan ba nit ñi xam image bi moo tax ma tekki masque bi di jégalu président Macky Sall ndax peut-être fi loi kon kenn ku soo tooñee ñu teg la daan rek mën nañu raq sa dig kon maa koy jégalu moom du ma violé loi di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sangu sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant suñu ñaari waajur di sant Serigne Touba Khadim Rasoul di sant Serigne ma jàngal métier di Bara Ndoye di sant nag mboolem jullit lii loo ma ci laaj dinaa ci tënk rek ñu jàllale message bi parce que combat bi nu porté moom mën bëgg incha allah mu jàll ñun nag tey la yàlla dogal la ñuy décorosé ci social ndax kilifa gi woon nañu te dañoo am kilifa te dañ ko war ci déglu ko loolu rek laa am lu wax boo amee looy laaj nga dolli ci. sa diggante ak Baye Cheikh Diop ci anam yi ngeen daan dundee ban xale la xale yi. kenn la nitu àjjana la dafa saayit foo ko gis ba ñu ngay jëkk a gis man coono bi ma ci rek boo ko gisee bàyyi ma ko dénkoon. ñëw jox ma ko sama loxo comme ni ma defoon ci kii ni ma sama doom a ngi nii ëllëg yow man xiyaam dinaa la laaj noo ko éduqué woon kon métier baax na mais yar baax na àllarba la ñëw sama atelier ni ma damaa bëgg def ci sa surgo bi loo xam ne dama lay tàggu donte dafa nekkaat ci tafa parce que maa ko yëkkatiwaat jox ko magam mu sama ginnaaw kon ba léegi responsable juguma yàlla dogal àllarba la ñëw sama atelee moom bil papam ni ma bàyyi cheikh mi dama la cee bëgg a ñaan tuuti rek ma wutal ko permis ma ne ko loolu koy baax na ba liggéey na ci benn moteur monté moteur boo xam ne autorité bu nekk ci mairie bi mu nuyu au passage monsieur le maire Daouda Ndiaye def na ci actu rafet te dinañ ci dikk parce que ku la defal nga wax ko sëñ Abdoulaye moo ne waxoon man ku ma defalul dara du ma la waxal dara monté na moteuru kanute wàcc woor moom wàcc woor monté ba pare moteur bi sax pareegul ñëw ba ci buntu atelier taxaw ñu dégg ni mi ngi def intervention ci casque orange monnaie buy tàkk ci buntu église bi boo ko passé tuuti dugg ci mbeddu maire bi li may wax damay geganoo sama bàmmeel parce que càngaayu xale bi maa ko jënd maa ci def li ci war lépp parce que li ngeen doon dégg tout le temps ñu naan Baye Fall bi ci réseaux sociaux lay mu naan bàqee càngaay mission baa ngi nii xañ na maa arrêté nag mbir mi maa arrêté parce que guerre la woon benn auto police moo ñëw intervention ci commune u Daouda Ndiaye monsieur le maire orange moo ne di lakk pour ñu leeral askan wi ñëw fii dañ koo jar dama naroon a tënk mais dama bëgg porte combat bi ba nga xam ne dossier Adji Sarr Sonko bi ko gën a taxaw duñ atte Sonko mukk te attewuñ sama dossier oto bi ñu ni mi ngi ñëw ma daal di woo xale yi tëj leen sama gaaraas bi oto bi ñëwee maa ngi taxaw ñu ci àndoon xam nañ ma te oto bi bi may romb éléments yi dañuy dox ànd ak oto bi dox ma ba ànd ak à 100 mètres matu ko sax ñu doog a dugg seen oto kon ñoom yaa a quelque de dedans parce que ñu jóge essence ba jiital oto police te ànd ak moom ñu ne intervention la ñuy dem ñuy dox ba toll sama atelier doog a dugg ci oto bi chauffeur bi jóge accélérateur bi di fay lu tolloog buntu kër sër dem fay ba pare ma leen di xool ni xale yi génn la ñibbi comme da gën a woori xale yi génn ma taxaw ak ñoom matul 10 personnes matul 20 du rassemblement du manifestation mu dem fay kees ko bi ba pare ma seen ko muy ñëw bi muy ñëw ñu armé wu ndekete bi ñëwee ba tolloog ñun billaahi wallaahi wa taalaahi bisub tey bii du jomb kenn te kuy atte na nga atte lu la leer kuy atte na nga atte lu la leer parce que atte bu ëllëg la oto bi ñëw ba tolloog ñun génne mété ci fenêtre giri bi kii day dépanner oto bi man mii damay dépanner oto bi xam nañ oto bi yëmbal commune yëmbal noor la mu déew ba fi vidéo yaa ngi fi parce que lu ñu fàng kenn du ko jeex du montage du dara xale ya ko filmé mu ñëw ba tolloog ñun génne mété bi ci giri bi ratatatatatata trois coups benn bee rey booy bi fekk avant muy agsi ci booy bi dóor na benn deuxième bi dal booy bi troisième bi man nii la ma rombe jaar ci sama diggante ak Modou bi dal ci zang yi romb Amadou Alima Ndion bi gàccoon la tudd xooma ki am tub bi fii parce que man dama joxe lu leer parce que damaa xam ni mën naa am ma dee tey damaa waaj ba pare man mais naa ne mission baa ngi mat na ku yaakaar ne da ngay jël sama bakkan ndax nga sa bopp parce que ki ma yenn yoon may matale mission bi yo woowaat na ma mu ñëw ba tolloog man laa la wax saqi troisième coup fii la jaar ci man kon kooku am na intention nan wax tëb yàlla tax ki ce qu'il y a lu xew ku ñu yónni lu xew wóoratul on est dans dans un pays dans ak lu waral door bal ak lu waral dóor bal bal royal te manifestation amul de Thiès ko orange mën a bu bu ay booy trois booy quatre yu jaar foofu yëngal rek gësam taal ko daw dugg mbedd Jolof benn autorité woote ni am na maire ngi lakk te or que demewul noonu sëñ bi bu ñu demee fee ba ci kanam mii yaa mën a jot li sama kàddu te dinañ liggéey giñ nekk Serigne Touba dossier bii Baara Ndoye gi nii moom a jàngal métier dossier bii ku yaakaar ne di ko naxas naxasal nax sa bopp parce que xam nga lu tax xam nga lu tax. dossier viol la woon viol da ngay tëm tëdd mu jeex viol da ngay dem tëdd mu jeex bu dee am na bu dee am na laa wax parce que xaw léegi nag li indi dossier bii ba am ampleur bi am léegi mërs nag non damay questionné rek mërs nag baax ku dee nag ku dee nooy def nu nuy def sa dossier ana ana ana avocat de peuple yi grand mission bi damay tënk rek pour ñu àgg damay mission bi dañuy wax ni xare xare borom a koy nettali borom xare ka daw dàqul ka dee dàqul xare borom koy nettali borom Serigne Touba ko sauvé te dinaa la ko woon après bu ñu àggee dinaa la woon ki sauvé xare bi. jërëjëf jërëjëf Baara ñu ngi lay masaw yow di la jàllin bokk bëggoon am sa ñaari kàddu ci xale bi rek. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah waaw di sant yàlla rek di julli ci yonent bi di am métit lool nag di am itam naqar lool ci li nga xam ne moo ci suñu kaw waaye nag di sant yàlla. mi ñu ko teg ndax lépp suñu borom euh, li may wax rek damay tënk rek comme li mu ko waxee moom mu ndongo man maa ko jàngal ci man maay seen kilifa ñoom ñëpp ñoom ñëpp man maay seen kilifa euh, am naa nag lu ma metti lool am naa lu xar naqar itam lool ay sant yàlla ndax xale bii dem nii tey demul ci ne da da doon manifester manifester wul bokkul ci kuy manifester yabalul kuy manifester dafa liggéey ba wàcc fekk ne moom mi ngi wooroon baayam moo ko jël jox ko mu dem jënd mburu ne day dem pour ndogu ci kër ga fi ñu taxaw ci buntu atelier bi yàlla dogal li muy dogal police fekk fa tiire bal mu daal ko foofu la yem muy doon nag lu metti lool ah euh, wax ji daal mënuñu ko guddal sax waaw parce que daal suñu xol dafa xaw a fees daal mënuñu guddal daal wax ji daal ñi sant yàlla bu baax a baax daal